mooy jur mooñ jur kooku am na lu luñ ci wax mais ñu jóge foofu ñu ne leen ñëw leen répondre ñu daw te yow yaay voté loi bi nga xam ne boo dee député yow yaay voté loi bu nga xam ne bu ñu la woowee bu ñu la bu la police woowee ak bu la tribunal woolee bu la procureur woowee yow yaa ko voté nga ne loolu du ma ko def damay daw tëj sa téléphone kenn xamul foo nekk ci biir Sénégal am ñu la làq ndax nekkoo sa kër am na lu ñu la làq dafa am importance ba pare am ñu doon wax ne wéy député nañu demande affaire boobu mais bu député man dama doon xaar ñaari leaders yi defoon conférence di wax nañu waa ba député yi dawee ñu woo leen dañ dem reprendre ñu daw lu tax defaatuñu conférence de presse pour défendre les institutions gis nga fii Sénégal am na lu ñu war a xam dañoo war a am lenn lu nga xam ne c'est négociable si ci ànd bi ak lu nga xam ne négociable gëm-gëmu nit c'est pas négociable dañ ko war a bàyyi mu gëm li mu gëm mais moom it na bàyyi ñeneen ñi gëm li ñu gëm est-ce que sunu république oui. ak unité nationale mm -hmm. pas négociable suñu gëm-gëm nag mooy ormal nit ormal jigéen respecté ñëpp bañ violent mais est-ce loolu moo ñu jur moo jur Sénégal depuis départ depuis longtemps ba ci këyit yi tey fi ñu toll dañoo wax nañu séparer politique waaw ak l'islam ku fi nekk parti politique da ngaa d'accord ne yow diine dugaloo ko ci charte ci sa charte diine bokk ci. boo demee ba nga def compétition ci fànn boobu. boo demee assemblée nationale. da ngay respecté diine yi mais doo wootewu ci diine mbaa ngay wootewu ci sëriñ foofu nekkoo foofu. kenn waru fa woote assemblée foofu kenn du fa woote sëriñ. bay réclamer wu man sama sëriñ. ñun ñëpp benn lañu parce que ku fii sa sëriñ rek sëriñu keneen la ku nga xam ne bokk la yow parti. dëgg ñoom mën na am sëriñ bi ñuy woote woo. Hmm. man dama ko ormal. na ma sama sëriñ la sama doomu sëriñ la mbaa sama rakku sëriñ la mbaa sama magu sëriñ la mais mun naa fekk ci beneen camp donc loolu moo tax ñu décidé diine bañ ko tey Sénégal bu yàgg ba léegi dañoo wax ne dañoo bañoon diine te à chaque fois que problème bi posé wu dañoo gis ne violence lay indi yaa ngi fàttali février 2094 euh, lii la jër woon dëgg la am na six policiers amoon na 1963 aussi waaw parce que euh, ñu ñu rey six policiers ab groupe nga xam ne dañ doon wootewu ci lislaam ensuite mais ñun ñi dañoo bañoon boobu ba léegi. mais par léegi am na. mais après opposition bi. ñu ngi def ñu ngi xam nga affaire bi wax leen xam nga dafa am benn période opposition. pour benn opposition. ak Wade wu vraiment ak ay yenn groupe islamique islam groupe l'islam parce que du islamiste man jàpp mën a ñoom ay islamiste parce que sunu diine bi ñu gëm. ñu ay mouvement religieux quoi mouvement religieux. ànd ak ñoom opposition parti au pouvoir bañ ba mu ñëwee mu reconnaître leen tey opposition bi tamit dem nañu associé dugal di wax nga xam ne bu ñuy non il faut ñu wax li ñu war a wax sëriñ ak politique. pour yow warul def politique. non non waxuma sëriñ ak poli warul def politique sëriñ sénégalais la mais bu dàppee bay def ne day day day. day day politique. dafa war a xam politique bi ni mu mel. dafa war a d'accord ñu. non xam nga fii Sénégal ñun ñëpp a ko bokk. <laughs> ku mu neex nga dem làmb ja ku mu neex nga dem stade. ku mu neex nga dem cinéma. ku mu neex nga dem. Euh, boîte de nuit. boîte de nuit. waaw ku mu neex nga dem feew mais fii am na fu nga xam ne bu ñu fa gisee sëriñ. ah dañ koy war a ko toog. mais bu ñu fa gisee sëriñ. mais non déglul rek déglul rek. est-ce que yaakaaroon déglul rek. Euh, ah, Babacar li ngay wax c'est important. Mm-hmm. affaire bi il faut ñu marqué ko. gis nga lii bu ñu ko dindiwul du te fii Sénégal képp kuy sénégalais. waaw nga bëgg Sénégal jëm kanam. ngay xeex pour Sénégal jëm kanam te am na fi nëpp lii dañ ko war a ŋaññ fexe taxaw xeex ko ba dootu fi am parce que non seulement ñun bëgguñu ko mais dafa tilimal dellu Sénégal ci àdduna bi yépp parce que en direct la. amul benn doomu sénégalais boo am droit tilimal doomu Sénégal ci àdduna bi surtout suñu parce que li nga def suñu biir assemblée nationale la te ñun assemblée bi ñu am quand même ñi fa jaar Lamine Gueye président Lamine Gueye dafa jaar ak ñeneen ak ñeneen nga xam ne dem na ba nekk président wu France hmm. jiitu ko ci même bu fekkee guddul hmm. non war nañ ko jox cër hmm. sénégalais yi nag nañ seet prochainement république bu ñuy fal kenn na fekk ne dafa gëm république dafa gëm unité nationale dafa gëm liberté démocratique dafa jàppale ñun sénégalais yëpp benn lañu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ah loolu lu am importance mais est-ce que yaakaaroon ne également bu ñu assainiroon le débat politique waaw hmm? je veux dire c'est que ku nekk war nga cee man a bokk pour man mais bu fekkee le débat politique aussi mooy xastante ŋàññante laa dañu naan bon sëriñ bi bum si ci dugg parce que il va recevoir des coups te kuy dugg politique mais bu fekkoon rek bu fekkoon on avait un débat euh, assez civilisé comme on l'appelle nit ñi di waxante rek si xalaat bu fekkee ñëpp développement Sénégal moo leen intéressé ci ni ak ci ne mais est-ce que foofu kon ku nekk mën na see euh, dugg euh, Babacar muy keneen dañuy jël da bëgg a génn ci débat bi xam nga wax naa la Amy Ndiaye ñii bi li mu wax du wax bu jaarul yoon saagowul ŋaññul dafa wax ñiy saaga bàyyi leen saaga parce que bu ngeen saagaa lii la mën a jur du wax ju ñaaw mu indi wax moo xeex bi maanaam dafa doon tontu. non du wax ju ñaaw xam nga li ma wax sànq ma ne kii dem assemble bu fekkee gëmul ne assemblée dafa askan wi la représenté amul fa place kuy dem assemble jàppoo ne réew mi askan wi moo la fa représenté. mais nit moo la fa représenté mbaa groupe nit moo la fa représenté amoo fa place. et député yi ñëw dañoo ñëw ne wane ne ñoom du ñuy député peuple. Mhm. mais député bu nga xam ne am na leneen lu ñuy wuyoo mun nga ko wuyoo feneen. mais ci place am ba. Mhm. c'est ça le danger. député yi moom moom c'est c'est non député doo ñëw ne man député laa biir assemblée nationale ci biir hémicycle bi. man représenté wu ma peuple bi kii représenté wu peuple bi. man damaa am ku ma représenté Macky ci Macky Sall la représenté mbaa Cheikh Oumar la représenté mbaa Babacar la représenté. Mm-hmm. kooku amoo place sunu assemblée. Euh, man bu doon man man tey bu doon bu dul moo dul woon politicien yi. Sénégal ni mu demee nga xam ne boo waxee ñu ngañ la ñu def loolu. dama doon woote ñu def mouvement bu nga xam ne ñooñu amatuñu place assemblée nañ leen remplacer. ñaar ñi nga xam ne ñoom ah de ñu ngi leen di euh, ñu ngi leen di wër peut-être que non xam nga loolu action judiciaire la ba waxuma ci action judiciaire bi non dama ne action civile xam nga ñi nga xam ne fii dafa am na ñu nga xam ne société civile la ñu woo wax bu ñu dóoree jigéen mbaa bu ñu defee suñu institution yi ndaxul nekk mbaa bu ñu la joxee ak yu bëri yu nga xam ne dañuy taxaw ne dañ koy xeex. wala ñu bàyyi ñoom wala ñu tey xeex boobu dañoo war a taxaw xeex ni ñii amuñu place assemblée. wala ñu fa nekk ci règlement intérieur assemblée léegi. non am na vide. non yow dugg ci beneen affaire. mais bien sûr non li ma wax nii xam nga société civile ONG. waay c'est opinion publique bi ni ñu leen di manipuler si yenn affaires yi ñëw leen ñu xeexi lii ñu xeexi lii. war nañoo ñu am ñu nga xam ne bo dañuy wane ne bokkuñu ci parti politique yi alors que ci parti politique yi la ñu bokk mais di woote woo ngeen kii lii ni mu am importance condamné mais fa la ñu yem da nga bëggoon ñu dem. non dañoo war a wootee ne ñii. wax nañ ne amul place assemblée ku wootu amul place assemblée nationale te yow nga ne société civile nga da taxaw da ngaa war a wax wane naka la nit ñi xeexi pour que kii bu mu dem assemblée nationale parce que li ñu moom bokk ko. moo tax ma ne important moo tax ma ne lii gën a yomb xeex bi ah, ah. ñu dugal ko ci règlement intérieur assemblée nee naa la loolu dañ ko war a mu ngi ci non règlement bi parce ko waxee aussi non règlement bi réglé na ko ba pare parce que moo tax ñu daw xam réglement règlement intérieur le président assemblée appliqué dañoo ne président appliqué règlement intérieur hmm. président appliqué ko bind lettre procureur mu ouvrir non règlement intérieur tere na ko ne ku ko def lii mooy dal sa kaw mais ñoom bu doon ay républicain la ñu dañuy taxaw ne lii moo war a dal sama kaw damay dem défendre sama bopp. waaw mais dañoo daw parce que xam nañ ne li ñu def àndul ak la fa nekk. Uh-huh. xam nañ ne réglement intérieur assemblée daf ko tere. daf ko tere comme bu ñu ñëwee def ko bu ñu demee day dal seen kaw ñu daw. moo tax ñu daw. de façon Sénégal moom kenn. non dañoo non affaire bi li ñu def parce que dóor jigéen ba pare daw. dañ ci kanamu alkaati lan lay nurul. <laughs> après ngay woote diine non nitu diine du def noonu. Eh. non mais mais mais beneen coow coow politique ah. peut-être que c'est pas la même. Euh, bon xaw ma ndax c'est la même ampleur ou pas mais bële assemblée xew waxal ba ma xam bal euh, Ousmane Sonko Adji Sarr barki démb euh, wala démb recevoir nañ leen na ah, déglu nañ leen li ñu woowee confrontation mais après gis nañu ni débat bi. Euh, dafa polluer également euh, la cette affaire dafa polluer le débat politique dégg nga Ousmane bi mu génnee moom génnagul ci complot bi moom daal nee daal yéen daal ak ñi ànd ak yéen yéen a ko fexeel ba nga xam ni aujourd'hui euh, moom moo ko indil problème daal comme complot daal. xalaat ne sax ñu ñan ñenn ñi daal leen déglu quoi. Ah, xam nga foofu tamit laal nga plan bu nga xam ne man. Hmm. en tant que sénégalais ak sénégalais bi mu bëgg bi ma Sénégal bi ma yaakaar ne foofu lañ toll. waaw tout dafa ma dama ci tuuti dama dama ci sewal dama ci sew hmm. parce que man bu fekkoon ne man maay ñi ñu tuumaal waaw bokkoon naa ci ñi ñu tuumaal ne dañoo violé jigéen ñu téye leen nekk ci prison bi tëj leen kaso parce que dañ leen a tuumaal kenn am jugé gu leen kenn waneeguñu dara ñu tuumaal leen hmm. xamuñu na ñoo ko def dañu def ñu tëj leen tey si kaso bàyyi ñu leen foofu kenn yëngatuwul kenn waxul dara ñu bokk ci nguur gi mbaa ñu bañ a bokk ci nguur gi. Hmm. te ñoom ñu tuumaal leen ne li ñu def seen biir kër lañ ko defee defe wuñ ko tooguñu ba guddi nga xam ne dañoo ne kenn warul génn doxi couvre-feu la woon couvre-feu la député jël otoom ànd ak chauffeur garde corps jël fi talam dugal ci poosam hmm. dem ci benn bërëb bu nga xam ne nee nañu massage la yow nga xam ne am na lu ñu ci wax Adji Sarr na foofu ku fay dugg ci biir doo doo sol tubéy doo sol mbubb dem foofu hmm. ñu jiiñ la ñu bàyyi la ngay dem ak ñëw di woote nañ ñëw alors que am na ñeneen ñi nga xam ne dañu leen di jiiñ seen mbindaan mbaa keneen moo leen jiiñ ci seen biir kër ñu weddi ñu jël leen ne kërëb ñeneen ñu nga xam ne dañ leen di bàyyi di werante di tuumaal ndax moo ko def non fii ku fi wax ne moo ko def ak doo ko def dangaa ngaa ñeme yàlla. Ah, ah, maa ngi baalu parce que fii. Ah. dañu ñeneen yi kon kon nañu bàyyi nit ñi juger mais fii dañoo am tribunal tribunal mooy juger ndax dëgg la am dëgg est-ce que ñañ fa yëpp li ñu leen wax li ñu leen tuumaal loolu la. Hmm. mais pourquoi nga yaakaar ni ñeneen. non bàyyil ba mu pare nga la boobu. waaw yegg <laughs> non il faut ñu xool ko parce que fii Sénégal. <laughs> man damaa commencé jaaxle dañoo commencé changer. Hmm. Sénégal moom lañ doon wax dëkku kumba am ndey ak kumba amul ndey ku am doole sénégalais yi dinañ la bàyyi nii rek mais ku amul doole dañ lay jàppale ku ñu suufeel dañ lay jàppale mais ñi jàpp tëj parce que dañ leen a jiiñ am ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi fii di wanewu doole député la chef de parti la mais liggéey justice la non attends mais lan moo tax la moo tax waaw déglu déglu rek xam nga waaw léegi waaw léegi kaay ma wax loolu nag lu wax nga lu am importance waaw si sa logique sunu réew la non sama logique laay wax xam nga fii Sénégal buñ dafa am ñu nga xam ne ay opposants lañu mais jéem a nekk ay leader d'opinion dina société civile la ñu bokk heure bu ñu jàppee opposant di nga leen gis taxaw ñu ne dañuy intervenir pourtant am na ay nitu pouvoir yu ñu fi jàpp mal leen ci dara mosoo leen dégg ñu ne ñii nañu négocier bàyyi leen mm. mais fu ñu jàppee opposition parce que ñoo bokk table yi nga xam ne fa la ñuy négocier mm. Alioune Tine am na sax ñu nga xam ne ñu ngi commencé changé bañ leen dalee seen kaw ba léegi mais moom comme il répond de l'étranger hmm. la preuve day am ay une yu nga xam ne yu ñu koy mooy ci journaux étrangers alors que ñun Sénégal bi ñu dëkk moom gisuñu ko muy kenn du ko gis bëccëg kenn du ko gis bëccëg guddi rek nga koy gis baat ci journal. <laughs> kan noonu. Aliou Tine non doo ko gis bëccëg <laughs> day nelaw. ensuite bu ñu ñëwee ñu ñëw la ñooñu ñooy ñëw taxaw wax dañuy défendre kii nañ ko génne Pape Alé ku ne ku ñu jàpp rek bu ma tudd tur ku ñu jàpp rek ñu ne nañ ko génne bu dee opposition nga négocier ñëw ne président Macky Sall moo ko jàpp boo boo boo sa oto ànd ak sa garde corps ànd ak sa chauffeur xam foo jëm dégg naa sax mobilier yaa ko jënd ak lépp xam nga ka fa nekk dem nga fa demaat fa nga ne président Macky Sall moo la pour nga dem foofu ñoom ñu téye ko ne dañuy défendre complot boobu mbaa bind ne affaire bi non kenn ñoom ñooy juge ñoom ñooy parti ñoom ñooy juge alors que fii ak koo mënti doon bu ñu la tuumaalee. nit porté plainte dañoo war a respecter ay droit am surtout que am nañu élément de preuve. waaw mais élément de non am nañu élément de preuve xam nga bu ñu génnee tuwaat fii preuve. xam nga mu ngi jéem a wax tey fi ñu toll nii ku nekkay wax rek di yuuxu. dëgg la mais la fa am foofu. gis nañ ko ñëpp wax nañ ko li ci leer man li ma dégg mooy que am na ñu nga xam ne duñ nekk foofu dañuy génn di yuuxu mais buñ leen waxee lu nga xam ne mënuñu ko tontu ñu noppi hmm. bu ñu bu ñu bu ñu waxee benn génn ne ñoom tontu nañu rey nañu keneen yi alors que bu ñu leen bu ñu leen sonnalee ñu noppaliku hmm. non gis nga affaire bi dafa reer bugguma dugg ci affaire boobu mais fii nañu Sénégal nañu respecté suñuy institution te bàyyi dina nañu di woote ay négociation dina non nañu bàyyi fii dem dafay délégation nañu bàyyi fii tey journaliste yi taxaw dina nañu génne kii journaliste la hmm. te ñun ñëpp xam nañ ne dootul journaliste parti politique la bokk bàyyi naa nekk de depuis longtemps hmm. jël objectif saaga nit yuuxu nit ngañ la tuumaal la sos la ñëw sa bureau xool ndax mun nga ko jox dara boo ko joxul mu dem bind livre mbaa mu def leneen bu ñu ko nee indil say preuve mu daw wuti ay gàllaaj yu dul jeex sol ay sabandoonu gàllaaj defe ne dina ci génn. li ngay wax ni monsieur le ministre. non li may wax affaire bi ba pare bu ñu ko jàppee ñun ñu yow ne bu ñu ko jàpp. <laughs> te day xas nit ñi bu ñu ko nee preuve du indi preuve mu jël li ñu am li gën a importance mooy nos force de défense et de sécurité li nga xam ne mooy état nga xam ne bu fi amul woon kenn du fi teg tànk du génn guddi. mu ñëw li ñu ne lii baaxul ministre président ak lu nekk boo waroo ko wax waroo ko yor sa yoon nekku ci waroo ko génne mu génne ñu dal ci kawam ñu ne noonu nañ ko génne bu ñu ko génnewul dañuy wàcc woote benn conférence benn woote wu ñu sax li gën a grave mooy woote wu ñu sénégalais yi. Hmm. ñëw leen ñu manifester mais dañu woote métier am na kenn ku ñu jàpp ci ñun ñun waa métier bi nañu wàcc wàcc. bu ñu jàppatee keneen ñi ñu jàpp bu ñu wootee seen famille ñu wàcc am na famille yi nga xam ne ñoo ëpp ñoo gën a bëri journaliste yi nekk Sénégal yëpp ñoom it bu ñu wàccee ci mbedd mi. Mm-hmm. nee nañu génne seen bopp lan lay jur. mais li nga doon wax léegi non démocratie. mais li nga li nga xam nga non par exemple xam dañuy non dañuy li may wax. non c'est important dama wax ak sénégalais yi gis nga euh, xaw ma cap la ñu wax. Mm. ñu ngi reculer Sénégal ci ginnaaw. comment non corporatisme. Euh, ci devant devant la justice nga ne yow kii bokk na ci man. non la presse nag yàgg na xeex. non non déedéet déglu rek moo déglu rek. yàgg nañ xeex. waa non mais dañ doon associé ñeneen dañ doon appelé à une marche publique ñu wax mais dañ doon wax ne nañu bàyyi libéré la mais dañu duñu dañuy wax ne ci bi continuer du ñu génne ay jugement du ñu ne kii ñu jàpp jàppee ko ci yoon bu nekk de dossier nekkee devant la justice dañuy bàyyi mu dem jusqu'au bout. mais fii li fi am dañoo ne bu bu justice bi bu ñu a bu ñu appliqué ñun li ñu wax ne moom la ñu juge dañ ko bàyyi mu dem la ñu wax mhm. Sénégal ñaata lañ fi jàpp ñu ngi ci kaso yi te fekk ne dañ leen a tuumaal ñuy xool ndax dañ leen tuumaalam déet mhm. xam nga corporatisme bu euh, journaliste yi tey dañoo am d'ailleurs sax damay wax ci loolu mhm. ñi marche ñi marche yëpp mais ay journaliste lañu maa ngi leen di sant parce que ñoom dañoo wàcc di jàppale seeni mbokk waaw mais nañu xool ndax euh, ñoo ñëpp ay journaliste lañu. am na ñeneen ñu ci raxaa waaw ñoom bi ñuy woote nag dañu woo ñëpp ah. non non non non société civile ñëwoon na Y'en a marre ñëwoon na société civile ñëwoon na. oui non xam nga ñooñu ñooy ñëw tout le temps bu ñuy woo bu ñuy xeex ak Macky Sall. su ñu jàpp ñu ne Macky Sall la. da <laughs> yaakaar ni combat contre contre le pouvoir de Macky Sall non non dañoo transféré affaire bi parce que non xam nga ay yanamaar hmm. ak waa yi ak euh, euh, yenn parti politique yi nekk opposition bu ñu demee soutenir journaliste bu njàpp boobu ñooñu dañoo jàppale politique la ñuy def parce que seen militant politique la ñuy jàppale hmm. mais journaliste bu ñu koy soutenir xam nañ ne kooku dootul journaliste depuis longtemps léegi dafa am dafa am beneen euh, beneen question c'est vrai qu'il ne reste pas beaucoup de temps dafa am question mooy laaj si wax nga léegi si ñi nga xam ne dañ leen di xaw a dañ leen di jiiñ rek viol ak yeneen te pourtant ñu ngi leen téye prison yow lan nga yaakaar ni moo war a mën a tax ak kaaw Ousmane sonk ni nga ko expliqué lan moo tax ba léegi yaakaar nga ni jàppuñu ko pour. Euh, téye li ma la wax sànq comme ni teewu ñeneen. non xam nga am na. lan la dafa am euh, dafa am tiitange bu ci am. wala wala non tiitange xam nga li fi amoon xem xew nañ li fi xewoon xam nañ fi. waaw fii suñu Sénégal. d'ailleurs sant euh, am nañu ay bànqaas yu kilifa jóge ci vann di nekk affaire yooyu ñu ñaan da leen di may. situation bu donc li amoon mars la ñuy ragalaat. Euh, non non non loolu dootu fi am loolu dootu fi am xam mars lu fi amoon. Hmm. situation international bu bu compliqué la. boo comparé ni am na ñoo xam ne ñu téye leen nga amatul Covid moom moom ñu jiñ ko téye loolu loolu loolu. lan lay lan lay niru mais moo tax may ne nit ñi dañuy def attention Sénégal ñun ñëpp a ko yem nañu moytu kumba am ndey ak kumba amul ndey. Hmm. ak fu mu mënti jóge ñu ne kii nañ ko jàppale. alors que am na ñeneen ñu nga xam ne def nañu lu gën a nga xam ne amul gravité ñu ngi leen fi téye keneen def lu gën a graaw ñu jéem a toog di ne dañuy juger nekk ci dëgg la nekk am ba dëkk non fii juge rek ñoo mën a juger te ku ñu juger wul ba ne la nekkul ci. yow yaa nekk ci dëgg mbaa nekkoo ci dëgg. amul beneen jugement bu lay nekk parce que ci république lañ nekk. ku fi wax rek da ngaa far. ku fi wax da ngaa far. ku fi wax dangaa far. <laughs> leer na mais mais coow loolu posé waat naa la ko maa ngi la koy posé waat ma troisième léegi mu ngi bëgg a leer ah. waaw lan moo bëgg a leer mën nañu ne mën nañu ne moom moom président day dem day dem troisième. yow loolu nga gis troisième candidat loolu nga gis. loolu ngeen di wax loolu la ñu dama laa laaj man da loolu nga gis ne nga affaire bi day gën a leer kon yow affaire bi mu ngi leer ci man li ma gis ni moom loolu la bëgg. moom la. loolu la bëgg. ah loolu man mënu ma dëgg ne mënu ma xam ndax moom la bëgg. yow wóorugu la non man la mais yéen ngeen bëgg yéen. non yéen waa APR. Euh, du du waa APR euh, lan la ñu bëgg. Hmm. ñun waa APR koo ci waxal na la Macky Sall mooy sunu candidat moom ngeen bëgg. moom mooy sunu candidat. waaw mooy seen candidat. ñun